nekk ca réewum États-Unis la ñu ko gënoon a ràññee moo di kàddu yu ñàggas ya nga xam ne daf ko daan faral di yëkkati jëmale ko ci nguur gi ba ci xupp di ay menace de mort mu mel ni kon moomee la ñu wax ni nguurug Sénégal daf ko clamé woon ba ñu teg ko loxo yàggatul dara njortees nañu ni mënees nañu ko rek euh, jébbal euh, nguurug euh, Sénégal nekk ca réewum États-Unis la ñu ko gënoon a ràññee moo di kàddu yu ñàggas ya nga xam ne daf ko daan di yëkkati jëmale ko ci nguur gi ba ci xupp di ay de mort mu mel ni kon moomee la ñu wax ni nguurug Sénégal daf ko clamé woon ba ñu teg ko loxo yàggatul dara tees nañu ni mënees nañu ko rek euh, jébbal euh, nguurug euh, Sénégal jamono jooje vaccin bi di AstraZeneca ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew wala si biir réew da ngeen a xam